asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi njabootug lislaam waa kër cheikhul xadim noo ngi am mbégte di toog ci jataay bii jàkkaarloog jëmm ji nga xam ne mboolem murit yi mboolem jullit yi seenug ñaan mi ngi jëm ci ñaanal ko yàlla yàggal ko fi lool te dolli ak wéram muy ki nga xam ne yitteem jëpp teeloon na koo xamal nit ñi jenn yitte la am mooy liggéeyal Seexul Xadim yàlla na ko ci yàlla jàppaleel boppam ba ni mu ko yéenee mu defee ko ni sun borom may ñu ndam ci topp ci ginnaawam te lépp lu ñu digal ñu def ko mu di Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér mu am nag kaddu yoo xam ne. da koo fas yéene yëkkatiloo rakkam jii di taalibeem yore kàddoom di cheikh Mahamadul Bachir moom cheikh Abdoul Khadir Mbacke mu jëm nag ci mbooleem jullit yëpp waaye rawatina nag taalibey Serigne Touba yi nga xam ne ñoo yaakaar Serigne Touba ñoo xam muy njabootu Serigne Touba ak boppam gi ak seex yi nga xam ne seen maam ñoo àndoon ak Serigne Touba ak taalibe yi nga xam ne yaakaaruñ dara lu weesu ndimbalul seexul xadim tey déglu ndigal ñoom ñooñu la Serigne Mouhamadul Mountakha fas yéene waxal. kon ñun ñëpp ñu déglu Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne mooy wax ci kàddoom lillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul cheikh mouhamadou mii nga xam ne tey moo fi jëmmi Serigne Touba ci tey ci kaw suuf ñuy ñaan suñ borom mu yàggal ko fi lool tam ànd ak wér ba naal yi mu am ci liggéeyal Cheikhul Khadim te génn ko suñ borom may ko kàttan ko wér may ko ak fekk ak wutal ba lépp mu mottali ko ni mu ko bëggee ci barkeb Serigne Touba ñuy xeeb lool kàddu yi nag yii ñu jox ndigal ñu yëkkati ko ngir delluwaat ca la suñ borom waxoon ci alxuraan ci saxaaba yi seen digg ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun inna allazina yaxudduuna aswaatahum inda rasulillah ulaika allazina imtaxana allahu qulubahum littaqwa lahum maxfiratun wa ajrun azim inna allazina yunaaduunaka min waraai alxujuraati aktharuhum laa yanqiluun walaw annahum sabaru xatta taxruja ilayhim la kaana xayran lahum te al ulama warasatul anbiya kon fii mu toog moo fi jëmi Serigne Touba waaye moo doon rasulullahi sallallahu alayhi wa kon kàddu ñu yëkkati dañ koy jëfe ngir ndigal ak ndimbalam ñu ñaan itam nim ko waxe ñu jéem koo waxe nim ko waxe kon sëriñ bi nee na ginnaaw bu sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne mi ngi nuyu bokk jullit yëpp di nuyu bokk taalibe yi murit yëpp nee na nag di sant yàlla bu baax ci kàddu yii mu leen di bëgg jëme kàddu yi nag la ci jiitu mooy sant yàlla ak sant Serigne Touba di xamal ñëpp ne na ko daa waxee rek amul bëgg-bëgg ci jëmmam amul bëgg benn bëgg-bëggu àdduna lu weesu jël léppam jox ko Serigne Touba leesu ak bëggam yëpp mu jeexal ko ci Serigne loolu nag ñëpp maase nañ xam ko ci moom loolu nag nee na mi ngi sant yàlla bu baax ndax mësta séentu ne jataay bii mu toogatee dana ko mos a toog waaye nag ci dogalu suñu borom ni ko yàlla wax ci alxuraan allahu alamu xaytu yaj'alu risalaati yi kon nag bi suñu borom dogalee loolu ci moom nee na yitteem jëpp naka jekk mooy liggéey Serigne Touba. rawatina liggéeyal ko ci xam-xam ndax loolu day yitteem ju ko yàgg ñor nekk ci xolam nekk ci biiram kon nag bi suñ borom dogalee lii ci moom ci bëgg-bëggu Serigne mu jënn yitte wala benn bëgg-bëgg lu weesu liggéey Serigne ci loolu ci loolu nag nee na mi ngi sant yàlla bu baax di sant itam njabootu Serigne Touba gi nee na ci nii leen suñu borom boole ak ni ñu rafete njortu ci moom ak nongol gi ñu ko nongol rawatina nag lépp loo xam ne xam nañ ne xam nañ ne bëgg-bëgg ma ñoom ñëpp ñu maase ci ànd ceeg moom doy loo ko ci. nee na kon loolu mi ngi leen ci sant di ñaara Serigne mi nga xam ne moo doxal loolu seen diggante yàlla leen fay ñu yàgg ànd ak moom te yàgg topp ci ginnaawam loolu nag ne ñëpp maase xam ne lu ko ñor la loo xam ne lu dugg ci biir xolum la kon nag ndigal li weesuwut nee na mooy daare ji nga xam ne somb ko muy loo xam ne daare Cheikhul Khadim la. mu yite ju ko yàgg ñor ba yàlla dogal lii kon nee na amul benn yitte wala lenn lu ko ñor lu may lii mu fas ne nag tàmbali ko incha allahu rabbil alamin eh, àllarba ji nga xam ne mooy dëppoog ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu ndax kon xam na ne Cheikhul Khadim lépp lu mu mos ci tàmbali ci weeru gàmmu la ko daa tàmbali wala weeru koor dëppoog juróomi fan ci weeru décembre kon ci bis bëgg a liggéey bi. mu di ko yëgal bokk jullit yi di ko yëgal bokku taalibe yi di xam le ne itam mi ngi sant yàlla bu baax ci feex ju ko suñu borom defal ci lii nga xam ne moo di sonc naa li Cheikhul muy daara ju mag joo xam ne Serigne moo waxoon ne bëgg na mu doon daara joxoon fu ne la nit di bàyyi ko ci àdduna di ñëw di jàng kon nag tawféex ju ko suñu borom defal ba yàlla def liggéey bi mu fës ko yéene àggale muy loo xam ne itam ni moo ko waxee. naan la woon woo xam ne maa nga tàmbali ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu tàmbali woon liggéey bi ba suñ borom def mu fas yéene mot li ñi nga xam ne ñoom la fi ñoo ko fi wutoon ginnaaw bi ndax ku xam na ne euh, Serigne Saliou Mbacké moo àggale liggéey bi ba woon daara ja bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara am ci yéene ginnaaw bi itam Cheikh Sidi mu fas yéene seen yitte yooyu yi ak seen naal yooyu nga xam ne moom naka jekk ab liggéeyam ci Serigne Touba loolaa ci jiitu yàlla def mu fas yéene ko tàmbali ànd ko taalibe Serigne Touba yëpp fas yéene itam nag lépp loo xam ne nit jox na ko ko wala moom ko dana ko ci def ba ci desal dara kon nag ñii ñaan ci barkeb Serigne Touba liggéey bi ni mu ko yéenee mu àggal ko jàmm daara ji nag bi nga xamee ne Serigne bi tàmbali na ko. moo joxel boppam tur tur tudde ko mu jëmoo Cheikh Ahmed al li tarbiyatil islaamiya wa tak wa loolu sëriñ bi moo joxe tur yi parce que yéen a tudde noon mu nekk complexe islamique bu mag boo xam ne day ëmb daara daaray alxuraan ëmb daaray nekk université ci biir ci biir loolu itam nag bi nga xamee ne tàmbali na liggéey bi ci la joxe woon ndigal eh, waa daairatu rawdu bi nga xam ne sëriñ ahmadul badawi moo ko jiite ak mboolem kuréel yi nga xam ne ñoo yëngatu ci dëkk bi ci wàllu xam-xam ñoo ànd ba liggéey ci liggéey bu rëy liggéey ci programme daara ju rëy daara joo xam daara alxuraan ndax seriñ bi nee nañ ko jiital ndax sëriñ luy lu su koy tàmbalee ci alxuraan la war a tàmbalee ñu liggéey ci programme boo xam ne daara ji day nekk daara cosaan comme ni ñu daa jàngi ci biir lool itam li manqué woon ci daara yii te doonoon cosaan ci yoon wi tàbbal ko ci biir mooy tërbiye gi dana dana am xelaqatu zikr di di tudd yàlla eh, bokk na ci itam danañ feex ba di leen tàggat ci ñu jàng xasida di ko mokkal danañ leen tàggat tam ci yarul islam ba ñëpp itam fo waxtu juli jotee ñëpp dem ci jàkk julli loolu lépp ngir bëgg tabax aw aw xeet la jublu loolu itam def nañ ci liggéey ci wàllu daar ji nga xam ne mooy kuliye bi nga xam ne moo war a yor wàllu ci université bi itam liggéey nañ ci liggéey yu rëy ci ay fànn yu bokkut xam ne Euh, def nañ ko ba loolu itam euh, liggéey ba euh, taxaw nañ ko ba tëral ko ba programme njàng ma lépp àgg na muy kulliyatu dirasat al islamia wal luxat en arabia ak mboolem yeneen faculté yi nga xam ne mooy jàngale métier yi nga xam ne yoon yu baaxoon nañ ko te dëppoon ak dëkk bi ñu def ko ca kon daara jooju nag bâtiment yu bare bari la ci xayma nag war naa toll ci 37 milliards loo xam ne li koy liggéey lépp moom la doon ba mu àgg waaye nag sëriñ bi xam na ne euh, xol xol yi nangu nañ sëriñ Tuubaa kon nag sëriñ Tuubaa lépp lu mu bëgg rek suñ borom dana ko defal la Cheikh Ibrahima Faty waxoon waxoon ne sëriñ du santaani mukk du am te du ma sant mukk lu ma du def kon nag sëriñ bi nee na xam gi ma xam ne sëriñ Tuubaa lépp lu mu bëgg dana ko am moo tax amu ci dara lu may xalaat mu wóor ko boo ko sëriñ bëggee rek la am kon mag mi ngi ciy soñ ñëpp. ci biir loolu itam sëriñ bi xam la ne ne li jëm ci wàllu liggéey bi entreprise bi nga xam ne moom la jox liggéey bi mu di ko taxawu loola mooy entreprise bi tudd Touba matériaux te Abdoul Ahad Ka jiite ko ñoom la sëriñ jox liggéey bi ñu du ko taxawu. ci biir loolu itam bi nga xamee ne sëriñ bi joxe na digal diirub ay weer ñu ngi ciy liggéey ci tàmbali plan yi ak architecte yi def ko ba lépp àgg bi lépp àggee itam nag. ma ci waxtaanee ak sëriñ bi laaj ko ci ndigal ngir bëgg liggéey bi ndax sëriñ bi ba mu koy tàmbali kat dafa waxoon ne yi ma ci soxla de mooy na jub te wér te leer loolu nag ci loolu nag boobu ba tey ñu di ci liggéey liggéey boo xam ne ñu ngi ci doon topp ba yàlla def na la ci ëppoon solo àgg na ci biir lool itam ngir bëgg lépp gën a tegu ci yoon ak jéem a roy na sëriñ Touba daan doxole ndax jumaay njaariñ bi kon xam na ne ci loxol Cheikh Issa Diène la ko tegoon waa jumaay Tuubaa ji itam bi ko sëriñ bi santaane daa jël ak Cheikh Ibrahima Fati def ko mooy jëwriñ ji mu jël sëriñ Bakké Bousso jox ko ndigal ne ko lépp lu jëm ci lu koy xiblaat teg naa ko ci sa jël ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ak sëriñ Balla Coro wax leen lépp lu lijjanti ay kayit ak lu ko taxawal ba bi taxaw loolee itam teg naa ko ci seen loxo jël ak Cheikh Mouhamadou ànd ak way juróom sëriñ Massamba jox leen ndigal ca carrière ba noonu la ko seriñ Touba tërale woon loolee itam nag moo tax ma tànnaat euh, sëriñ maam Thierno Mbacke mii nga xam ne sëriñ bi da leen a joxoon ndigal tudde leen al jabhatul muridiyya lil ilmi wal amal muy kuréelu taalibe di daayira bu mag mbooxane mboolem ay ingénieur yoo xam ne lépp lu laaj la lu mu laaj ci xam-xam ne na ci seen loxo ñoom nag laa tegaat lépp ci seen loxo ñoom ñoo saytu lépp lépp lu ci jëm ci taam bu njëlbeen gi ba ci mujj ga ñoom ñoo koy taxaw di ko saytu te eh, def nañ ko ci ngeen xam ne li ñuy wax kafa am na ci ñoom mooy doy nañ ndax liggéey moom la ci ëpp solo mooy loo xam ne boo ko defee xelu ñëpp dana ci dal te ñëpp xam ne ñoom ñu ko yor ñu jub leen te wér nañ te dara itteelu leen ci lu may liggéey Sëriñ Tuubaa moo tax ñu tegaat loolu ci seen loxo kon nag ci biir loolu sëriñ bi nee na. mi ngi fàttaliwaat bu baax lii nga xam ne eh, ndigalu sëriñ Tuubaa ndax sëriñ Bàkki Buso moo bind ci ay mbindam leeral eh, bi nga xam ne sëriñ Tuubaa ñibbisi na Tuubaa mu wax ca biir mbind ma ne haza wa innahu min jamii al ali cheikh bamba almarhum wa atbaahi walmutaalliqina rijalihim wa nisaihim kibaarihim wa shixaarihim ammatihim wa xaasatihim ila xaakimin xukama wa raisi ruasa wa xakimin ulama monsieur Brevet boobu moo fi nekkoon wa min shawahidi tilka almulaxasa anna cheikhi rahimahullah lam yabqa lahu ayna wafatihi min xawaaiji dunia fi ma naclam illa thalathun talaba min aldawlati alfaxima ixdaha wasakata an albaqiyatayn is lam yajid lahuma fursa fa saafatu bi ma talaba alaa huwa almasjidul jaamiu bi watanihi tuuba almahruusa wa amma allataani sakata anhuma fa al ula alxajju allasi yacuduhu almuslimun min furudi ayaanihim ka salawaati alxams wa siyaami ramadan laa yusqituhu an muslimin xaytu kaana min aqtaari al ardi ila adamu al istitaaca wa qad acadda lahu zaadan baalixan ila axirihi wa thaniya madrasatun takunu rihlatu sénégal ilayha fi l ulumi al arabia charciyatiha wa alatiha waxad aadda kutuban la tujadu inda xayrihi wa fitiyaana mutaahilina kon loolu firndeel na ne Serigne bi muy ñibbi si ñetti mbir la fi bàyyi ba ba mooy jumaay Touba ji nga xam ne woote woon na ba mooy bëgg dem Makka loolu itam ku ne xam na ne amoon na ci gàllankoor ndax ndax te xaymatin jabriya bu ñetteel ba mooy daara joo xam ne daara ju mag lay doon joo xam ne fu nit mën a bàyyi ko ci Sénégal ak biti Sénégal day ñëw di fi jàng si mu ne ci biir loola itam sëriñ bi waajaloon na daara ji boo ba waajaloon sax ña fa war a jàngale waajaloon na ay téere yu bari yoo xam ne jëndoon na ko kiir bëgg bu noppee daara ji ñu def ko fa kon nag mébét moom mii la Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëw ngir fàttali ko taalib yi parce que yéene tàmbali di leen fàttali itam nag ndigal li nga xam ne Serigne Touba ci 1926 bi muy woote jumaay Touba ji ca booba autorité coloniale yi fi nekkoon bëgg gàllankoor liggéey bi tax ñu teg Serigne bi ay sart yu bëree bëri yoo xam ne neexutu matal boo ko ne ca sart ya dañ ko wax ne ko faw nga dajale xaalis bu bëri boo xam ne entreprise bi ko yor. daa leen mën a garanti ngir lu ci mën a xew ëllëg ñoom seenu xaalis du perte bi loolu amee nag sëriñ bi yónnee wootale mboolem kuy kilifa ci yoon wi ak mboolem kuy seex ci yoon wi ba ñëpp daje mu ne maa ngi leen di nuyu di leen jotle ndigal loo xam ne fu waay jëm na ko fu mooy maa ngi leen di digal lépp loo xam ne bëggati ngeen ko wala ngeen sombati ko rawatina lu mel ne néegub yàlla bii na ngeen ci jéem. la ngeen man ak la ngeen mënut te lu ngeen ci mënut ngeen dem laxasaa yu wuti ko ci anam gu sell te fa ca seen kattan yam ngeen toog xaar fa say jaalullahu baada usri yusran te rikkuwaay maa ngi leen di wartandiku loolu lépp ndimbal kon lépp lu ngeen bëggati ngeen ci sukkandiku ci seen bopp te leen leen wartandiku loolu lépp ndimbal loo xam ne bu leen fajalee seen soxla it daañu leen seen daañu leen xañ seen ngor xañ leen seen jom tilimal seen diine daana yett ngi yoo xam ne nag képp kum nekk ci ko ne war ngaa fexe ba laxasaay ba doo ko ñàkk képp koo xam ne nekkul ci yow nag war ngaa fexe ba laxasaay wuti ko mu ne yett yooyu nag bokk na ci la koy may mooy fexe ba man sa bopp fexe ba moom sa bopp fexe ba ñàkk sa bopp mu ne man sa bopp boo ko defee mooy lépp loo xam ne mun mun mënta ñàkk ci sa yitte na nga fexe ba laxasaay wuti ko ba doon nangu kenn ku lay jëmale feneen fudul fudul fudul fa bëgg ñàkk sa bopp nag mooy da ngay fexe ba kenn doo nangu kenn ku la moom ku dul yàlla mm-hmm. wala ngay nangu kenn koo xam ne dana la not ba fa ko neex mu jëmale la fa ñàkk sa bopp nag boo ko defee neen doo jël sa yitte di ko weer nit ñi di ko weer ci doomu aadama yi kon da ngay fexe ba mën a soof nee na loola la jiitu ca la koy maye mooy lépp loo bëgg te mënu ko ñàkk nga feex ba wutu ko soof bu am ko bokk na ca la jiitu ca la koy xañ it mooy fexe ba ñàkk mën a soob kon nag loolu euh, ndigal la loo xam ne Serigne Touba moo ko santaane woon kon Serigne bi nee na mi ngi digal taalibe bi yëpp ni ko kilifaam yu jëkkee daa defee lépp lu ko ci nit indaal indil daan la ko ci defal kon nag mi ngi koy yëgal mboolem ñu bokkal Serigne Touba liggéey bi di xam ne ne xam na ne ànd nañ ko ñoom. waaye mi ngi leen koy digalaat di leen ci soññ kenn ku ci ne nga soññ sa waa kër yi ñëpp ku ci ne la nga man ak la nga mënu nga fexe ba def ko ci. mi ngi koy digal itam mboolem bokk yi nga xam ne ay taalibe yi bokk ci yoon wi di ñëbootu Serigne ba tey di ko digal itam mboolem ñi nga xam ne Serigne Touba moo leen defar tofal mbooloo seen ginnaaw lañ yor Serigne jox leen ko Serigne Serigne bi naan mi ngi leen ko digal di ko digal taalibe yi nga xam ne itam ñoo topp seen ginnaaw kon lu ci waay man. na ko def te xam ne lu mu ci def rek euh, suñ borom dana ko fay te Serigne dana ko fay kon mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan dërëm bu ci waay def la Serigne waxoon ne bokk na ci njëriñe addiya dana fekk fu dara mu def fa dara dana fekk fu dara nekk baril ko dana fekk fu lu bari nekk mu barkeel ko kon nag mi ngi ciy soñ ñëpp di ci gërëm ñëpp di xamle ne euh, Serigne Touba lu ko waay defal rek sa bopp mu koy defal. ndax lépp lu mu bëgg rek suñ borom dogal na ko ba noppi kon nag ku am tawféex fexe ba bokk ca lay tax aajo ju fajo war ngaa sant yàlla bu baax. àllarba jooju ma wax ci la sëriñ bi fas yéene ñëw ànd ak njabootu sëriñ Tuubaa yëpp ngir tàmbali liggéey bi eh, ñu ngi ciy woo ñëpp nag eh, fukki waxtu di diiseer na fa fekk ñëpp sëriñ bi tegal boppam xeer wa barkeeloo ko ca na ko sëriñ Tuubaa defoon ba muy yëkkati jumaa njariñ ja waxoon na wa iz yarfau ibrahimu alqawaida min albayt wa ismail rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf bokki jullit yi nga xam ne ñoo ñuy teewlu ak bokki taalibe yi ndigal laa ngi noonu mat sëkk ci làmmiñu cheikh mahamadul basir waaye jóge ci ndigalul sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa kon nag la sëriñ bi waxoon ne lii ngeen yor ba di ma ko sante maa leen ko jox kon lay tax ngeen jot seen àq ngeen yëg ne maa leen ko jox kon fu ab taalibe mën a ne ci biir réew mi ak bitim réew ku yaakaar sëñ Touba ak mbooloo ma topp ca sa ginnaaw sëriñ Touba rek tax mu topp sa ginnaaw ndigal lii nag bëggug sëriñ Touba la mu bind ko ci xaside yi waaye baaxe ko Cheikh Mahamadul Muntaxa mu bëgg sun njariñ bëgg sun ndimbal tax mu woote ko kon murit yi fu ab murit mën a ne fu taalibeb sëriñ Touba mën a ne bisub àllarba bii yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmmu dëppoo ak juróom-ñi fan ci weeru tubaab sëriñ bi di tegali boppam xeer wi foo ab taalibe mën a ne ñëpp war nañoo fobow ñëw fekk si sëriñ Muntaxa bu geestoo dana ko wóor ne fan weeri milliards ak juróom-ñaar yi muy tëwoo sëriñ Tuubaa moo waxaloon boppam ne sun borom mooma moom loo àdduna moom loo ma alaxira te li ne ci àdduna ak alaxira la ca gën yonent bi alayhi salaatu wasalaam na ko teg ci am xiiwal sëñ tubaa tax bëggug sëriñ tubaa la naali sëriñ tubaa la mébéti sëriñ tubaa la sëriñ bi bëgg ñoo dimbale kon ñi ngi ciy séentu ñëpp fu ab seexub sëriñ tubaa mën a ne na nga woo sa mbooloo ànd ñoom ñëw topp ci ginnaaw sëriñ Muntaxa àllarba mu teg xeer wi mu tabaxal ci sëriñ tubaa université bi sëriñ tubaa defar sun àdduna ak sun alaxira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu بها يزول الأذى والجهل والكبد بالمصطفى لي بنى القدوس مدرسة بها يزول الأذى والجهل والكبد